yaay bu yaay bul fàtte rek ah ñun suñ mbokk yëpp ren nii ñaante ni set ah ñun ci loolu lañ judd si ah buñ waree gis dañuy gis wax ci lañ judd waaw waaw loolu la de ah sama waaw sama nijaay biram day ah. seet yow kilo jur sa waajur bu jigéen xam na dara duudu seen sa papa xam na dara waaw maam jigaan ak ñoom ñëpp ah man ma nekk seen sët xam nga ne du ma waxantu waay. waaw waaw waaw waaw loolu la de. mbaa kontaan nga rek ci victoire bi. kontaan naa ci kay. na sa jàmm bëri. bu fekkoon ne ni nga ko gëñee ci siñ ni nga ko gëñee ci siñ Babacar amul man dama ci daal di am défaite yow sëñ Babacar du moom lay mujj a waat man li ma lay waat sax moo ëpp li may waat sëñ Babacar bu ma ko waatee rek jeex na. waaw loolu looloo tax yàlla defal jàmm may la wér sama yaay ji yàlla nga gudd fan kontaan naa. amin moom amin jërëjëf. Adamo ça wax xamoon naa ne Modou Lo waxoon naa la Modou Lo day gagné ko 18 wax ne Modou Lo day. day gagné moom. wallaay lazim man tamit de man tamit de xam nga. xaaral ma wan benn sëriñ bu waxoon xaw ma lan rabbul kaxba. xaaral ma ñëw kax ba ko sa non safrulaa sax kax ba kii la may ma ma ñëw man am na ku may xool vidéo am kii kii mooy kan moom. de Modou muy demee te coow li bëri na lool waaye li ma leen mën a xamal. billahi wa rabbul kaaba Ama Baldé day daal. safrulaa bu rëy. astaghfirullah kii mooy waaye yéen kii mooy kan kii mooy kan yéen. loolu muy demee te coow li bari na lool waaye li ma leen mën a xamal. billahi wa rabbul kaaba Ama Baldé day daan Modou Lo jël bu rëy Ama moo koy daan incha allah. safurla. saa ta ta ma lii spécial laa koy def spécial toj seen lëfal ndey danaa ko def video léegi spécial xar seen data ndey laa ko tuddee dégg nga comme na ma ko defee woon ca football ya léegi nag. dama leen di bàyyi ngeen reposé wu ngeen fete seen victoire mais Adamo lu mu leen waxati dee leen ko bàyyi xel te xam ne du waxantu man dama bokk ci famille séeréer sama papa di ñaan sama yaay di ñaan xam naa nag musuma leen koo wax sama yaay du ñaan de ki jur sama yaay mooy ñaan ak sama maam ak sama nijaay man dama dëgërul fit mais kon mën ne leen damay seet mais duma def loolu mais damay tëdd di gis damay tëdd di gis ma dafa leer li ma leen di wax dafa am fu ma ko teg duma ma waxantu waaw kay bàyyi leen ma xel bu baax maa ngi ñëwaat incha allah war bi ci xar data ndeyu sëriñ yi ak waaru Ama Balde ba ci kanam.